bu teg ne sama loxo bi day baaj ak ngeen ji def ba gis ne tey jii ci laal sama awra normal, loxo yonante bi tax na ba ak moom ci sama loxo bi ba léegi nunguma cee laal ci sama loxo bi sama awray bopp rawante na awray keneen musuma jekki di waye ko caaxaan musuma wax lu amut te di ko musuma naan sàngara du ca ceddu ga ci baa duggee ci lislaam ba tey jii jàll ne ba yonent bi ne ana kuy jënd suuf si ñu yokkee ko jàkk ji ku ko def day yàlla fay la ab néeg ca àjjana suuf soosee maa ko jënd ñu yokkee ko jàkk ja Ousmane ba muy wax lii booba sant rek a tax damu taxutoon wa qaala Abdullah ibnu Mas'udin radiyallahu anhu laqad ghasu jappena min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bidhan nangam wa sabihina juroom ñaar fukk suratan ci ay sar wala qad halima xamna ashabu rasulillahi sahaba yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam li andi naka man la a'lamuhum ma gëna xam ci ñoom ñoom ñepp ma gëna xam kitabillahi ci téré yalla bi mu ne xolal Abdullah ibn Mas'ud ba mu ne lu ëpp juróom-ñaar fukki saar ci alquran ci gémmiñ yonante bi laa ko jële mu yonante bi ci boppam moo ma ko jàngal mu jële ko ci gémmiñam mu dugg saa nopp ma mokkal ko lu ëpp juróom-ñaar fukki saar ci saari alquran tekkee ne waat naa ne saxaaba yépp xam nañ ne maa leen gën a xam alquran ba tey ba mu wax lii booba sant rek moo taxoon waaye damu taxutoon wa qaala abdullah ibnu zubayr radiallahu anhu yaa machar al xujjaaji yéen mbooloom way aj ñi saloon yi laaj leen ma fa xale naa ci nun kat kaana la nekkoon at tansilu wàcce alquran ga wa naxamte nun xadar noo teewe itam at tawila tawil ga Abdullah ibnu Zubayru Abu Bakar bu baax mi moo jur yaayam asmaaw mooy yaayam ku ràññikoon la ci fanaanee julli guddi ak yendoo woor bëccëg mas naa wax ñu aj si woon ne leen lu ngeen xamut laaj leen ma ko ndax maa ngi bokk ci néew bi nga xam ni ci ñoom la yàlla wàcce alquran ba noppi nag ma teewee sama bayit ñu fekk woon alquran di wàcc lañ ci wax ci firi ak lañ ci jëf moo ne ni mooy pirim wax ja lu lépp dama ko teewe kon nag bu ngeen bëgg laaj laaj leen ma ko walamma tafaaxarat ba damoonte murdu quraishin doyami quraish murdu jamu am kuy wax tayam ci wolof mooy waxambaane woo xam ne jotaguta sax sikkim wakku luhum te képp ci ñoom dakara tudd na xisaalahoo ay jikkoom wal xasanu bunu aliyin moom saakitun aju noppi la saakit xaala wax lahoo ñeer ko muawiyatu maa yam naxu ko ana lu lay tere minal xawli ci wax fa ma ant déet yow fama anta ana lu yow bi qalilil lisani ga aji lot aw lamign qala mu wax la ñel ko ma dakaro tudduñu makrumatan ben teranga wala fadilatan du jagen ben ganel illa wali dara nga xamni ñel na ma mahduha aji selam ja walu babuha ak la ci gëna sell wa anshar ca mu sadd ne fii ma ana ci lan alkalaam mu wax ba wa qad sabaqtu te jiitu naa mu barrisan mbir may aji raw sabqal jiyaari kem jiituk naaru góor ya minal madaa ca lef ma almutanafis moo ci topp nga xoolaat ko xëy na mu jublu almutanafis yi lef may aji yaatum mu ne ba tey waxambaane yi Quraysh dañoo toogoon di damu kenn ku ne wax ay jalooreem alxasan mi doomi aliyu di sëtu yonante bi soxna Fatima jur ko moom waxul dara dara mu xaawee ne ko lu tax yow nga ne patt waxoo dara dangaa mënta waxa am na nga amul loo wax ci xeetu damu mu ne ko dama xam ne ñoom ñi damu luñ mën di wax rek maa leen ca jiitu fuuf dama leen terawe daa ëpp ba duñ ma séen wa qaalat xaaishatu radiallahu anha fadaltu ëppee naa mbaa gëne naa nisaa nabi ci soxna yonante bi sallallahu alayhi bi ashrin ci fukk fa xëy na te waxees laxaa ko maa hunna ana luy ñoom yaa umal muminin qaalat mu ne lam yankix mësta takk xat mukk mu yonante bi bikran xiig xëyr yi ndare man wala meen kiix te mësta imraatan jigéen joo xam ne abawaaha yaari waajuram muhaajiraani aji gàddaay lañu xëyr yi ndare man wa anzalate wàcce na allahu yàlla tabaraka wa taala baraati sama set mina sama yi ci asamaan way jaati dikke jibrilu jibril bi suurat yi ci samaw melo mu ne samaay tukkee ci asamaan fii xariratin ci morsob sooy waxaal te wax yonte bi ne ko te zawaj xaa moom imraatuka sa soxnaa wa kuntu nekkoon naa axtasilu di sangu ana aman wa ak moom fii naa yin ci ndab Wahin nuy leen wala mu yokkuntu nekkutoon yasnaxu di def daalika loolee bi waaxidat ak kenn min nisaa ci ay soxnaam min nisaa wa qad silu ba daana bu daana wàcc alayhi ci moom al wax yu wax yu ga waxoo fek na moom max yi mi ngi ak man wala mu yen sil te musta wàcc ci moom max ahadin ak min ci ay wa kaana nekkoon na yu sal di julli wa ana te man moo taridatun aji galendu laa doon yedd yi diggante yaari loxoom mooy ci kanamam wala mu yokkunte nekkutoon yaf xalu di def daalika loolee bi waaxidatin ci kenn min nisaa yi ci ay soxnaam xëyri ndare man wa qabada ti ngëpp allahu yàlla taxala nafsahu bakkanam ba waxuwa te fekk na moom bayna saxari nek na digënté sama xëtër wa nahri ak sama pottax wa maata te mu faatu fi leele ci guddiga ga ëllëg nga xam ne kaana nekkoon na door di wëndelu alé ci man fi ha ci mom wa du fi nete te suuleef ko fi bayit ci sama néeg soxna ay sa bamu wax liko yàlla defal dane woon mbooleem yoonte ma sa yor ñu di ay soxnam gëni naa leen fukk tàmbalee ko ci man rekk la masa takk ci xiik kur yi man ba nga koy takk fekk na mu di ab jeeg man képp la masa takk ci xiik mooy jigéen ju nekk ndaw mu teg ci ne man rek maay soxnaam soo xam ne yaari waa waajuram yépp dañoo gàddaay am daraja ju màgg jooju muy gàddaay dem Madina ne yonante bi mu teg ci ne man rekk maay koo xam ne bañ ma tuumaalee ci ñaawteef woowee yàllaa ma setal ba noppi nag leeral na ma setale ci alxuraanul karim ñi di ko jàng ba faaw faaw mu tekki ne man rekk la yàlla mas a jox jibril sama melo mu ëmb ko ci morso sooy ne ko wét ko yonante bi ne ko kii sa soxnaa mboolem soxnaam yi daawu ci ànd kenn di sangu farata ci benn benn ndab man nag maa ngi moom daan bokk di sangu farata ci benn benn ndab mu ne man rek itam maa daa nekk moom yàlla di wàcc ci moom wax yu amul keneen ci ay soxnaam koo xam ne mas naa nekk moom wax yu di wàcc ci moom mu ne man rek itam mën la daa may muy julli mu tëdd fi kanamam galendu man maa ngi galendu moom muy julli te maa ngi fi kanamam loolu dawu ko defal kenn ci ay soxnaam mu ne man la yàlla itam ba muy génn àdduna maa ko yore banam génne àdduna wuy ji boroomam mu ne itte buñ daa seet nam daa ay ayloo dem fa kee jóge fa jàll ca kee guddi googu mu génne àdduna man ma aaye woon daa toll woon nag samak ay mu ne ba tey ñu dolli ca sama néeg ca lañ ko denc moom ku baax kii batay gis nga soxna aïssa da doon wax rek li ko yàlla defal di sant waaye damu taxutoon muy wax loolu wa kaana nekkoon na acheikhu abdulqadir aljilaaniyu radiallahu anhu yaqulu qadamaaya sama yaari ndëggu hëtaan yi la yaar xalaa raqabati kulli waliyin nekk nañ ci baatu bépp waliyu Cheikh Abdul Xaadir siiw na lool moo sos yoonu qaadiriya mi ngi feeñ ci àdduna bu dee ci gàddaay gi atum ñeenti téeméer rek juróom-ñaar fukk ak benn génn atum juróomi téeméer na ci ay waxam mu ne man day sama yaari ndëgg yii dinaa ko nuut ci kaw bépp baatu wàllu yu wàllu ne ni ma la tiime féeti kaw daa mel ne dama joggi sama yaari ndëggu ci sa baat day wax rek nu mu jiitoo mboole wàllu yi ba tax mu ne sama yaari ndëgg yi mu ngi ci kaw baatu خيجب يلا وكان الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه يقول لو احتجب دونت لقون أن يولسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدت دم نفسي سما بوب من المسلمين جلدني أبو العباس المرسي دان وخني يرنت بي بما لقو بن يون سما لقون لم نيو نيو ma jàpp ne bokkutuma ci julit ñi wa kana abu al abul ahmad at tijani radiyallahu anhu yaqulu la yashrabu dunan naan waliyun waliyu wala yusxaate def ko nàndal illa min baxri naa dara ci sunu géej min nashati al alam ci li tambale ci sosub bindef ila nafxi ba ci walga fi suri ci buftaba ba وقال وخنا يتني رضي الله عنه اذا جمعها بدجل الله يالله تعالى خلقه من فمي في الموقف في التحواي با ينادي دنا جبتاني منادين اجي جبتاني باعلى صوته تي گنجا كوي كادونغا يسمع هو دنا كو دگ كل من كيب كو خامني في الموقف نك نتي تحواي با يا اهل المحشر ين بولم ني نك سي بربو بانكو كاي بي muy barabu taxawaay bii haza kii imaamukum mooy seen ilimaan allasi ji nga xam ne kaana nekkoon na madadukum seenu tëbb mi fu di tukkee ci moom mu ne xoolal Cheikh Ahmed Tidiane daana wax ne xej yàlla boo gis ci sama géej lay naane li dale ci bi yàlla tàmbalee sos mbindéef ba ba muy wal bufta ba xeejub yàlla bu fi naan rek ci sama géej la naane mu ne it Cheikh Ahmed Tidiane waxoon na ne su bis ci taxawee ba yàlla dajalee ñëpp ñëpp ci benn pàkk dana joxe ndigal am ku jéebtaane ci kaw li kaw kàddu koo xam ne ñëpp koy dégg ne leen yéen mboolem ñu nekk ci darab bii muy taxawaay bii Ahmed Tidiane mi mooy seen njiit li nga xam ne lu ma leen mësaa tëbb ci moom la jaare jàll si ci yéen ci moom laa ko daa jaare mu ak ci yéen mel na ne lu bari ci wàllu yi dañ daan wax lu ñu wóotoo yonante bi ak nu ñu taxawe taxawaayam ba di tudd ay jaloore yoo xam ne yonante bee ko jagoo waaye ñu wuutu guñ ko wuutu tax na mu mel ne ñooy moom ñu mën a wax lu mel ni loolee ñu wax fa mislu haza kem lii min ambiya illaahi ci yonante yàlla yi taala wa xulafaa i rasuulihi ak way wuutu yonanteem ba alayhi salaatu wa asxaab yi ak i saxaabaam ورضوان الله تبارك وتعالى وأوليائه أقجم العارفين ندوي خم لا ينبغي ديال لأحد يال كان أن يقول ميجاك دي وحنا إنهم نك نيوم يزكون تين دون سلال أنفسهم سين بوب تين دون تاغ سين بوب دال ولا يحمل تدين كلامهم سين وخ على ذلك تي إلا من دركو خمني كتب بندنا الله يالا عليه جموم الشقاوة تحيد والخسران أكم برت نحو ضد المسلو بالله يالا من مثل تاريك كم لولو مني فأبي أن توحي لملني با أب صحابة با نتو يالا كن من دون كو خم دي خم موم دي سنترك وعي damu taxu koy wax yëkkati boppam taxu koy wax koo gis nag mu jàpp ne ka wax loolee daa yëg boppam daa bëgg a yëkkati boppam nangam ki nangam xamal ne kooka daa bokk ci ñi perte te nar a di waaye ku nara a texe moom day xam seeni wax teg ko fa mu tegu te bañ koo teg feneen qaala جلال الدين السيوطي رحمه الله في السواعيق على النواعيق ليس هذا ديلي من باب الافتخار يبقى بنت دم ولا تزكية النفس رجاجين السل البكن بل لفنك له من لين في هذا جلي وجهان ياري أنا أحدهما بين نيوم أن هذا نكلي من باب التعريف ميغي بوك سي بونتو خامله بنفسه سي بوبام ومقامه اك مقامام اذا جهل ديم ريفنا مقامه مقامام قال النووي في الاذكار في مدح الانسان سي تاغ نيت نفسه بوبام وذكر محاسنه اك تولو اي رفت رفتام يعلم قملني ان ذكر محاسنه نك تولو اي رفت رفتام ضربان ياري خيت madmumun bu ñu ŋàññi wa mahmudun ak bu ñu sant fal madmumu ba ñu ŋàññi an yadkurahoo bay mu tudd ko lil iftixaari ngir damu ga wa izhaaril irtifaaxi ak feeñal yëkkatiku ga wa shibhi daalika ak lu mu roog loolu wal mahmudu ba ñu sant an takkoona moo di bu nekkee fii ci moom maslahatun maslaa diiniyatun bi ko diine diiniyatun wa dalika loolee bi an yakkoone ci mu nekk aamiran di aji digle bil maarufi ci lu baax aw naahiyan wala muy aji tere anil munkari walis lu bon aw naasihan wala muy aji laabiire aw mushiran wala muy aji junj aw mushiran bi maslahatin ci maslaa aw mualliman wala muy aji xamle aw muaddiban wala muy aji yare aw waaxiwan wala muy aji waare aw mudakkiran wala muy aji fàttalee aw dafan wala ngir jiñ am na fii wëli si boppam aw naxwa dalika wala lu mel ni loolee fa yadkuru te mu tudd maxaasinahu ay rafet rafetam naawiyan mbir mu aji yéene bi zalika ci loolee ay yakkoona bu nekkee haza lii aqdaba di gën a jege ilaa qabooli qawli jëm ci nangu waxam wa atimaadima ak sukkandikoo la nga xam ne yadkuruhu dana ko tudd wa anna haza ak naka lii annas yi li nga xam ne yaquluhu dana ko wax laa tajiduunahu du ngeen ko fekk xinda ahadin fa kenn xëyri ku may man fa si xookoon na dëgërloo bi ci moom mu ne jalaalu diin asyoot wax na ci téere bi tudd assawaayiq ala nawaahiq ne lii ñenn ñi wax ci nit ñu baax ñi muy nuru damu ak tagg seen bopp demewul noona mën naa doon nag benn ci yaari anam yi ba ci jëkk mooy mu bëgg xamle boppam xamle maqaamaam te fekk na lépp lu yëkkati diine rek a tax muy xamle noonee boppam aka yëkkatee noonee dara jam ñu dégg suyuti yu jàll ne soo demee ci téere bi tudd al adkar te annawu yu taalif ko fam doon waxee nit di tagg boppam ak wax ay baax baaxam dafa waxoon ne nit jekki di wax ay baax baax yi boppam ñaari xeet la xeet bu rafet bu ñu tagg ak xeet bu ñaaw bu ñu daldi ne wax baaxuk boppam goo xam ne damu rekk a tax ak yëkkati boppam mbaa lu ko nuru dara yàlla nekku ca mooy anam nga aay te mata moytu ba ca nag muy bañu sant mooy na mu yëkkatee boppam ak la muy wax ci boppam ci lu baax lépp dafa jëm rek ci luy dellu ci yàlla mel ne day digli lu baax ak ay lu bon mbaa muy laabiire mbaa muy jàngale mbaa muy waaraate tax nag mu wax ay baax baax ci boppam ak nu mu toll ngir bëgg rek ñoo waxal xam ab dayoom ba nangu bu baax a baax lam leen di laabiire lam leen di waar lam leen digal lam leen di tere ndax nit ki fi ko tek sa xol dana tax nga japp bu baax baax lam lay wax ba nga woyofal lam lay wax kon nak kay wax baax baaxi bopam bu ci jublu rek wotel yalla ñu nangu wote mbobé wala kon lu baax baax la def ndax lepp ma nga delu ci yalla melne mu wax leen loo xam ne da leen di wax ne leen daal say bu ngeen jàpp ci bu baax a baax dëgg la goo xam ne lu ngeen wër wër wër dangeen gis lu ko gën a dëggu mbaa lu ko gën a mata topp mbaa lu ko ëpp njariñ wax nu mel noonu ci ñamu wàqanteel te yàlla tax loolu du gis boppam bëgg taxawal yàlla dimbali ñi ci jëm rek la قال في القشاف عند قوله تعالى حكاية تنجنت عن يوسف قال منه لا ياتيكما دلين ديكل طعام او نيم ترزقانه و ديف نالين كو الا نباتكما دراما خبار لين بتاويله تي قبل ان ياتيكما تشك بولين دي ديكل الايه توب الله يبا يوسف تولوك فالير جيوم fii nekk na ca ne ànd la xaalima nag aji xam ja ida juxilat ndéem réeréef na man si la tuxoo wàccukaayam bil xilmi ci xam-xam fa te mu melal nafsahu boppam bi maa ci la nga xam ni xoo moom bi saddadi yi nekk na ci wàllam lam yakun du nekk min baabi taskiyati di bokk ci buntub tagg boppam boo demee ci téere tafsir bi tudd al kashaaf ba muy wax mbirum yuusuf ak lu yusufa wax ñaar ñu mbokkaloon ca kaso ba dañ laaj ko gént bëgg mu firil leen ko mu ne leen ñam wu gént rek gis ko ci ay nelaw ma daal leen di wax lan la ba ngeen ca àgg ba di jàkkaarloog moom ci njéeméer ki doon tafsir nag ne des na ci dégg kon borom xam-xam bi bu fekkee ñoom lu waxal dañu umpale dara jaam man na leena xamal dara jaam ndax ñu japp ci la muy wax xamni mom mi borom xam-xam deug deug la nangul ko lam leen di jotali wa qala aydan fi mawdihin akhar ci beneen barab ne tu tudammu deful ngagne at tazkiyatu selal bop ga maanaam mel ni tagg boppam ida kaanat ndem nekk na li mugaradin di ngir ak jublu saxiixin gu di aj wér fi diine ci diine wattaa baqat te mu dëppoonteeg alwaaqixa la xew dëgg-dëgg mooy la am dëgg-dëgg bi dalili xawli yi ci tegtal wax yonante bi sallallahu alayhi wa li ma ñeel ko nga xam ne xaala wax na la koy ñeel ko ne ko indil maandul fil xismati ci séddale ba mu ne ko waman yaadilu ana kan mooy maandu ida lam aadil ndéem maanduwuma mu ne ci alkashaaf ci benn barab ma ngi wax naa nit wax baaxu boppam dara nekku ca ndegam la tax mu wax loolee mbirum diin rekk la teyit na mu ko waxee noonu la deme mu misaale ko yonante bi ba ko kenn ne waa ji maandu ci ni ngay séddalee yonent bi ne ko maa gën a maandu ñëpp man su ma maanduwut ana kenn ku ñu wax naa daa maandu wa qaala sayfu diini bunu abdillah kullu man képp koo xam ne axbaraka xibaar na la xan naf si boppam bi amrin ci mbir moo xam ne yuxtaaju def na aajoo إلى معرفته جمت أقمم لولا إخباره بلكون قبارم ما عرفته دوكو خم فليس بقبيه دو أجيبون دو أجي نياو ذكره تدوم وإن اتصل أقدون تجوكوون بمرده أكتقم ولي هذه الحلة تنجر بلا سبب ما حتلا تقى الأنبياء وينتي أنفسها سين بوب مها تواضحها ànd ak seenug toroxlu waxadami talabiha ak seenu ñàkk sàkku xayral maqaamaati lu dul maqaama ya ay charxiyat yi ko jug yoon ku ñu wax sayfu diin ibnu abdillah nee na woon loo xam nit mënu koo ñàkk xam boo ko xamalut du ko xam kon faaw rek na ngay def ba mu xam ko te japp ko war nga ko def doonte sax da ngay ag ci tag sa bopp mbaa yëkkati sa bop ba tax ke mu xam la ko bëgg wax te japp ko loola jar nako lool kat ne mo waral yonante yi mel dañu tag seen bop ci buñ de wote te fekk na dublu lu may rek taxawal shariha taxawal yoonu yàlla taxawal diine rek moo tax ñu wax la ñuy wax muy nuru tagg seen bopp te tagguñu seen bopp waaye ndegam nag ñi ñuy waxal bu ñu waxul seen tolluwaay duñ gëm liñ leen di wax duñ ko jàpp loolu rek moo tax ñi waxee ñoom noonee lu mel noonu nag boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo wecc yonante itam loolu mooy seen biir ci googu wàll والوجه انام غا اتاني غا اج نيارل ان هذا نكلي من باب التحدث ني بوك سي بونتو وقتاني بني امات الله سي خيول يالا غا شكرا غير سانت وامتثال ان غير توب بي خولي تعالى واما بني امات ربك دال سي خيول صبروم فحدث نانكو نيتلي نانكو وقتاني بالفاتين دانيون jekki di wax luy nuru tag sa bop ci ni ko siyooti yi waxe ne woon ñaari xal la ben balay door wax bi ci dess nak mom la tambale ci ne moy kooku la muy wax diblu ci lu may bi ne wa amma bi ni amati rabbika fa bi yalla ne bi xewul gi la yàlla defal nettali ko waxtaane ko ngir sant kon jaamu bi yàlla ba yàlla xéewal mu waxtaane xéewal googe ko yàlla defal ngir sant loola sunna la suñu war a roy qaala alxasan bnu aliyin radiallahu anhuma ida asabta bo joté khairan aw yu fa hadis nang ko net nettali ixwaanaka say mbok wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at tahaddusu waxtaane bi ni'matillahi ci xewlu yàlla shukrun sant la wa tarkuhu ak bàyyeem bañ ko def kufrun ak weddi la moo tax mu ne alxasan mi doomi aliyu soxna fatima mu jur ko mi sëtu yonante daana wax ne soo amee aw yiw soo amee lu baax na ko ko nettali say mbokk ndax ñu bëgg ca yow it ca nettali nga jëfe nga sunna muy la yàlla na yonante bi wa amma bi ni amatara bi ko fa haddis yonante bi ci bopp mu wax ne waxtaani xéewalu yàlla daa bokk ci xeetu sant waaye ñàkk koo def nag daa bokk ci xeetu weddi baa nga daa bokk ci weddi njekk xaala bu nu jariir kaana nekkoon na almuslimuuna jullit ña yaraw na di gis ne ana min shukrin ni amati naka bokk na ci sant xéewal ga an yu xaddasa bu dee fi waxtaane bu dee fi nett li bihaa ca moom ibnu jariir nee na woon julit ñu baax ñaa baax dañoo jàppoon ne waxtaani xéewal ga la yàlla defal daa bokk ci xeetu sant xéewal ga mel na kon ñàkk waxtaani xéewal ga day tax cant ga daldi manqué wa akhraja al bayhaqiyu anil jurayri qala kana yaqulu inna taadaada niami naka lim xéewal ya mina shukri bokk na ci sant albayhaq yi jële na ci al aljurayri yi mu ne di waxtaane xéewali yàlla yi di ko lim ak lim ndegam dañoo bare bare ba kenn mën leen a wàññi waxtaane xéewali yàlla yi di leen lim ak lim ak lim daa bokk ci dëgg-dëggi cant ndegam yàlla ne wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kon nag di jéem di nettali xéewal yooyu boo waxee bee teg ca teg ca bee loolu daa bokk ci xeetu sant wa qaala bnu abil xawaari jala toogoon na fudaylu bnu xiyaad وسفيان بن هيينة ليلة جن قدي إلى الصباح بسوا يتذاكران دي فاتلي كونت دي وقتاني أني أما خيولي يقولان دي وحركن أنهما خيولنا الله يالله تبارك وتعالى حالينا جنون في كذا جنانكم أنهما الله تعالى حالينا في كذا ñaar ñi mu tuddu kenn ku ci cig yiw cig sàmm cig dëggu muy Fudayl ibnu Xiyaad ak Sufyaan ibnu na mu ne ñoom ñaar nee nañ mas nañoo toog genn guddi ba suba jot di waxtaan rekk xéewal yàlla yi di wax ni yàlla xéewal nanu nàngam yàlla xéewal nanu nàngam di wax di wax di wax rekk ba suba jot te ña ko tàmbali woon ci guddi ga waqaala abu baljin kaana amru bnu maymuun ida laqiya bu taseeg ar rajula min ixwaani yi ci ay mbokkam xaala mu ne ko razaqani wërsëgale na ma allahu yàlla taxala albaarihata biig mina salaati ci julli gaza nangam wa kasa ak nangam wa rasaqa allahu taxala mbaa boog war a saqani laahu taala albarihata min xëyri ci yiw kaza nangam wa kaza ak nangam abubal ji nee na ku ñu wax xamru nu maymuun daraan def bu tasee kenn ci ay mbokkam di ko net li sax li ko yàlla baaxee ci xeetu julleeg jëf yiw yi ngir rek sant nit ki mu ne kam taseel biig de yàlla baaxe na ma ba julli nangam ak nangam ak nangam waxu ko ngir ngistal mbaa ko teg fenn waaye da koy wax rek ngir sant yàlla mi ko ko xéewale mbaa boog mu di seeg mbokkam ne ko big de yàlla damaa wërsëgale ci xeeti yiw nangam ak nangam ak nangam waxad arrafa xamle na alxulamaa way xam ña ashukra sant annahu ci naka moom i'tiqaadun ak fas lay doon bil janaani ci xol wa dhikrun tey ak tudd bil lisaani ci làmmiñ wa amalun akuk jëfe bil arkaani ca ponk ya wa anshadu te ñu sadd wa anshadu ala dhalika ci loolee afaadatkum jëriñ na leen an na maaw xéewal ga min yi ci man salaasat ñett yeddi sama loxo wa lisaani ak sama làmmiñ والضمير القلب المحجب وتبنير أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب هم اللي بيروا بتي خم نكوكو دق دق أنكوكو سراني ومعنى البيت أفادتكم إنعاماتكم علي ثلاثة أشياء مني المكافأة باليد ونشر المحامد باللسان ووقف الفؤاد على المحبة والاعتقاد mu ne ñi yàlla may ñu amuk xamaku xàmmee nee sant balaa mat daa boole kay sant wax cant ga ci làmmiñam fekk nag mu fas ko ci xolam ba noppi nag jëfe ko ci ay cëram kon cant dëgg-dëgg tey boole xol ak làmmiñ ak cër ci des ñu indi ci nag bayit woowu mu di ak seere maanaam muy lu dëgëral wax jooju bam nee nag xaala جلال الدين السيوطي رحمه الله في السوائق على النواهق جابلني بوبا لغي اي وخم دا دون توخالي فوفو با في فاذا تفهمت بو في هذا جلي وامي دغ جلي حاليم تاغا خامني ان هذا الولي نك بلي خيجو يالا حفظه يالا نك دولي وات الله ما حمله ينكو على قول ذلك تي واخ لوله الى الاصلاح ندره دفر وانه انكم موم مقتد اجر لا بذلك تي لوله باهل الفضل تي نون غنيل وخاصه الله اك تاني الله تعالى كوينا من خلقه اي من ميديفم وان انكار haa'ulaa'i l-munkiriina ak naka weddi ñi day weddi maa lahu di ko ñeel muzawwixun jenn aji daganal xayral jahli ndare réer wa kasratul xaflati ak bari càggante an mutaalaatil kutub wal si yër téere ya mu ne li la jot wax yaatu na des na ci dégg lu bare bare boo ko jàppee te xam ko dana la wóor ne Sëñ Tuubaa mii lu wax ci lu mel noonu rek roy ci yonante bi ak gaa yu baax yi rek a tax mu waxee noona nee na sax li muy wax ci lu mel noonu diis na waaye nag yàlla ko ko wax loo mënu koo ñàkk a wax mu ne kon boo jàppee li ma la wax dëgg dëgg da xam ne ñoo ñuy jéngat sëriñ bi xamadi rekk ak càgganti góob rekk moo waral ñi jéngat sëriñ bi di wax naa day tagg boppam ba lu ko nuru jan na ba naa yal nanu sori lal allahu yàlla taxala turuqal xasadi yooni kañaan wal intiqaadi ak gëstu sikk ci ñu baax ñi waaye jaxale naa te yàlla nanu def min ahli rabaax yi bokk ci ñun tono bil itiqaadi ci rafet pas-pas ci nit yàlla yi wa taqabbala te yàlla nangu min naa ci nun ku la jëpp jëf wa bi ak jëppuk tuub wa sarafate mu wëlbati xanaa walis nu kullama lépp loo xam ne yu addi day àggale ilal xitaabi jëm ci yaraange wa azala te yàlla na dindi xanaa walis nu bulumaati shakki lëndami sikki sàkka wal wax mi defle wal wax ورزقنا تي يمن يالا ورسغل سي دخل يقين دغوك وولو والفهم اكو دغ وجهلنا تي يالا ندف ني مام ني كو خامني اذا دهاه بوكو وي اجارو مويو وزحزحه مسر الحنا ولسن كل سترين سيك سترة وحجاب الأبوب كراي وأعطانا تيال نجوخ من غزائن رحمته تمانغسين يرمانهم كل سول jep aajo bi jahi muhammadin sallallahu Alaihi Wasallam, sallam kulli rasulin mi ngën ji bépp yonante ya. dafa daaneele ñaan yalla bu sonu ci luy nuru kañaan bu sonu ci luy nuru di jema gestu sik ci nit ñu bax ñi yalla ñu yalla may kay du bok ci ñu rafet ñort ci gaay bax yi di rafet pas-pas ci ñoom teg leen fa yàlla teg mu ñaan yàlla nangul nu lépp lu nu jëf nangul nu sunu tuub bool nu ci jaam ñi nangu seenu tuub sorilal nu lépp luy indi yaraange sorilal nu lépp luy sikki sàkkaak jeexi jaaxa may nu wërsëgale nu dëgg-dëgg yaqiin dëgg-dëgg xam ak xàmmee bool na ci ñi nga xam ne buñ ko ñaanee mu may leen te bu leen yàlla digalee itam ñu topp bu leen wooyee itam ñu wujji ko yàlla boole na ci ñi nga xam ne da leen di dàqal lépp luy kiiraay lépp luy baaraas mën a dox seen digganteeg moom yalla maynu ci maa ci si lepp luy pajuk aajo ci daraje yi yonente bi nga xamne mo gën kep ku mësa yónni khatimatun li ab mottali qad xadd matna bi hamdillah ànd ak sant yalla wa husni aunihi ak rafetum dimbalam hadal kitaabu bi la téere albaariu bi ajraw raw bi nga xamne malahu ñeel min mudaarihin jan aj ënd si téere bi nga xam ne jamaha doole na zubdatal xulumi daxub xam-xam ya maanaam la gën a ci xam-xam yi mel ni ab dax bi tisaarin ànd ak gàttal fa nasalat te wàcc min ci moom maanaam bàyyi ko ci moom xala xala ahlil inkaari ci ñoom weddi ga riixu insaarin ngelawal cell meer ngelaw lu am doole bi maa ci li nga xam ne jamaha بولي نكو من محكم التنسيل تي لي خريني القران المشفوه جاري جون تولنتي بكل اديس تي بف اديس مرفوع بدي بن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا عدم مبالاتي ابناء هذا الدهر بنكو نك نياك فالك دومي جيلي جامونو بالفوائد تي نارنيا وعدم تمييزهم ak seenu ñàkk ràññeele seenu ñàkk xàmmee bay na laxati diggante ay coowi kese wal faraidi ak benn benn yee ñàkk moroom waxadamu isxaayim ak seenu ñàkk déglu ilaa man jëm ci ka nga xam ne ajaada rafetal na fa afaada te mu fa afaada waxadamu tinaihim ak seenuk ñàkk sonne seenu ñàkk yittewoo bi xil mi ci xam-xam al mu zinu ji aji yëgle koy maas al mu zinu mu dellu ci xadamu bi nafaadi ci ak jeex la ataytu kon mu dikke min siirati hada cheikhi ci jaar jaar bi la sëriñ bi maa ci loo xam ne taddiixu dana xat an walis ko as saxaa'ifu téere ya wa tatahayaru te gëlum fi ci al jamaahatu mbolo ya jamaahatu wa tawaif ak kuréel ya mu ne bi fofu la yam ma ngi wax li nak ci fi téere bi yam di leeral ne ma ngi sant yalla lool ndax ci baaxub serigne bi yalla dimbalé na ba téere bi àgg di téere bu ñak morom di téere bo daa misaaloo ne calmeer lu am doole lu kenn mënta dékku nga xam ne fu fekk kuy jéem a weddeekat dingat sëriñ beeg lu wërta dingat ak a weddi rek da lay buubaale ëff la yóbbaale ndax li ma ci indi ci lu bokk ci alquran ak lu koy dëgëral ci addis boo xam ne boo ko toppee mu àgg ci yonante bi looloo tax téere bi demee noonu bul ko nag li ma seetlu ci waa jamono ji ñu ñàkk faale lool lu am njariñ xamuñ daal coow kese ak wax ju am am njariñ joo xam ne dafa àgg ci ñàkk moroom ñàkk ñàkk xam yooyu yaar ak itam ci boo leen di wax lu baax ñu la déglu duñ la faale ñàkk yittewoo xam-xam lool ñàkk a yittewoo gi xam-xam wane na ne addunaa ngi bëgg a jeex mais bul koon ak lii kon danaa andi ci mbiri sëriñ bi lu baree bari loo xam ne du xaj ci ay téere kenn du mën a takk fa mu daleeg fa mu yem kenn du ko mën a lijjanti ndax yaatoo ko bari waaye ku ëmb lu baree bari arjoo danaa yaakaar minallahi ci yàlla añ yekkoon bu nekkee haada sa yu jige jëf junnatan di pakk lii ñeel ma mooy di kaaraange rek min kulli suu in